ndaw yi yewoo ci quartier bii ñu naan Mourel nekk fële ca ñàgg cant ak ngërëm lañu jagleel kii nga xamante ni moom mooy président mouvement ànd defar suñu gox di Abdou Aziz Sall ginnaaw bi nga xamee ni ndaw yi dañu ko diisoon soxla boo xamante ni seen terrain boobu nga xam ne fa la ñuy defee tàggat yaram ngir mu defaral leen ko ginnaaw travaux yi Abdou Aziz Sall ñëwoon seet si leen ngir nemmeeku yooyu la liggéey waaye ci loolu ndaw ñi yëkkati ay kàdduy ngërëm ak ay kàdduy cant di ko xamal ni Abdou Aziz ñi ngi sa ginnaaw tey ba suba ñun yow lañu àndal te yow lañu ñu wóolu du ñu def lu dul taataan seeni kàddu wala man kii yàgg ma ko xam ne mais wër na yàlla daf neex quoi. dëgg la billaahi même bu dul yàgg ma ko xam mais daf ma neex. dëgg la tax dafa soo ma waxee nga def rek dama lay jàpp. dëgg la dafa wax mu def. moo tax ma ne jeunesse bi man chaque jour man damay xeex ci suuf te gars yi ma koy gars xam nañ li wax bu baax baax. dëgg la man nee naa leen man. jàkkaarloo caméra bi. Aziz moom laa àndal man. dëgg la man moom laa àndal man opposant laa. man ku ma defal wax dëgg yàlla yow laay àndal quoi parce kii lu mu def yowul waaw ci waa Mbouré amul dara lu Papis def Mbouré lan la def def bu dara parce que démb la may fay 200000 démb lañ doon xuloo si koñ ba ah mais loolu espion la 200000 fay di xuloo aslam la leen ko may ñëw sax Mbouré Mbouré dama leen di jox ku ne terrain. teere yi gars yi doon seddale quatre personnes ñoo am mu ne am sama mag moo am jagat face caméra ak saam ñoom kese ñoo am koñ ba gars si des yëpp amul kenn ku am teere ba na toogee ku doon dem waaye dem

ñu dem ba comité rural ba ne ko ñun kat teere bi ñu waxoon moom lañ bëggoon ñëw xool si bayal public bi ñu waxoon mu ne kan moo leen wax dama leen a mos a loolu la wax daf ñoo wàññi si kanam paa yi. waaw gars yi li wax su fekkee du dëgg yéen ci ginnaaw wax leen ko ah. kooku ñu wér waaw kooku moom ku toog ku toog sept ans deful si dara mais mënu fi def dara bu taw weer bi naan day def ay teli xor. maanaam tane damay ànd ak moom boo ko fi dara ñun ànd ñoo moom tey ànd ñoo moom ëllëg. waaw tàcc ngeen ko waaye may defal laay àndal. jërëjëf Sabine. sant nañ la la. dëgg la ñu ñu woo ñu wuyu la yow. guddi bëccëg yëpp ñu ngi sa ginnaaw. man de maa ngi sa ginnaaw. faaw mu keneen nag. waaye loolu laa amul mooy wax. dëgg la nee naa. di baax di baax di leen di leen gërëm bu baax a baax a parce que li ngeen def daal man pour man tey jàppandoo leen kenn pour man yi parce que dangeen ma sécurité ci kanam yëpp yëpp yëpp yëpp ak kanam yàgg yëpp man wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla jërëjëf jërëjëfati waat gàcce loo ma de wax dëgg yàlla gàcce loo ma. waaw gàcce lañ jigi waay gàcce loo ma daal man jàpp naa leen man nga defal lii nga xamante ne tey mooy lii kon yëpp tey ànd mbégte bii nga xamante ne am nañ ko tey mu réer waaw kon jërëjëf Aziz Sall waaw. ci dëkk yow bu baax a baax di la ñaanal yàlla yàlla defal jàmm ak salaam. oui waaw di la ñaanal bu baax a baax yàlla defal jàmm ak salaam. jërëjëf Djibi li ngay jëf aussi ci commune bi yàlla na ko yàlla jox. amiin tey Maodo Ndiaye yàlla na ko yàlla def ci kàddu gi Ibrahima Mohamed. amiin loolu la lay ñaanal. jërëjëf di wax aussi quoi mooy benn bi mooy wax dëgg yàlla pour man lii du ay dig da ngeen gisal seen bopp. dëgg la gisal ngeen seen bopp yàlla mel ne xeex. waaw muy lu metti loolu nag ñu teg si lu ne ñuy xeeb am ñu fu ñu teg waaw tey ab assistant tey bu dëkkee si koñ bi tey ñëw sigil leen yi ah man de wax dëgg yàlla man la sant waaw man la sant te man tamit yaakaar naa yenn su bëri jom gi nekk si ñoom ak bañ ku leen yàpp bu ñu dem benn politicien rek di dem di yaakaar yuy wér kon ab assistant dee wax sakkal dal bu baax a baax a baax a baax a baax xam ne waa Mourel moom wax dëgg yàlla ci nga leen gëraal wax xaw ma fan de dama ne comme ñàkk na bi nga dëkk tey jàppal ne am mëneel yi mooy waaw kon daal wax dëgg yàlla ñun kontaan nañu waaw di wax jeunesse mëneel comme ni ko góobari waxee rek mooy suñuy carte ñoo ko moom te yaakaar naa ni benn politicien mënuñoo jënd si dara dund rek loo xamante ne daal indi day gàllankoor suñu benn benn bopp. kaddu yi ndaw ñi abdou aziz sall ak ñimu andal, yëkëti nañu ñomit ay ay yi cant ak ay yi ngërëm di denk ndaw ñi ne ñom dañoo bok ci ñi nga xamanteni ñom ñoy daagan baatu askan wi ngir yor li nga xamante ni mooy communauté awon pël ñàgg ñàkkurab xamal ndaw ñi ke buñu yoré bobu le commune dinañ safara bëpp jafé jafé bo xamanteni amna ci bilep commune alaykum wa ñaaga ñu ngi leen di baax baax di nuyu waa Mbourel waaye di nuyu aussi waa Tawfekh Yaakaar euh, di leen sant bu baax a baax di wax ne contentement la ñuy am bu ñu taxawaatee fii ànd ak suñu président du mouvement ànd defar suñu gox di monsieur Abdoul Aziz Sall. di wax ne euh, yëpp góor rek la defaat comme d'habitude jikkoom la lépp lu mu diggee incha allah def ko. Mhm. te la preuve moo ngi nii tey. Mhm. déployé na plus de quatre cent et quelques mille defaral jeunesse su ñàkk mais particulièrement jeunesse su Mouré. waaw waaw Mouré tàcc leen seen bopp bu baax a baax a baax. defal leen temps yi ngeen xamante ne nii jeunesse bi sept ans yi ñu ko soxla mënuñu koo am. am mhm. yaakaar ci monsieur Abdoul Aziz Sall. ñëw gis ko seen soxla mu ne leen incha allah dinaa ko def kon promesse la woon. te tenir na promesse am. wane na ne dige bor la te macha allah fay na leen. digoon na leen ko def na leen def na ko kon nag nee nañ ku la jox ndéeg. bu la liggéey ay nga war koo gëm. waaw dëgg la tàcc leen ko la. monsieur Abdoul Aziz Sall su leen waxee ne le 23 janvier bu toogee ci mairie ba seen aar yëpp dina faju seen rongoñ dina fer. dëgg la ñu gëm tey gëm. am contentement baax bu baax a baax. fii waa commune bi rawatina waa Niakhoura en principe mais aussi waa Mourel ndax gis nañ jeunesse su Mourel yëpp ak taw seen ci ginnaaw président Abdou Aziz Sall. mais di jàppal aussi jaajëfal jigéen ñi baax baax baax ndax boo ñëwee ci ndaje gis ko ay góor muy ay jeunes waaye it nga gis ko ay jigéen. sa ngeen day dal. parce que dañ ne mënuñu développé commune bi sans jigéen. mais mënuñu ko développé aussi sans ndaw ñi te ndaw ñi gis nañ leen bu baax a baax baax baax. kon ñu ngi leen sant bu baax di wax ne yéen jeunesse bi yéen yéenay avenir bu suba kon gën tax xool bu baax seen carte ki ngeen koy jox. te yaakaar naa ne meilleur profil le profil idéal pour la commune de président du mouvement ànd ñun ay doomu yoo xam ne tey jii bari na ñoo xam ne tey jii ñu ci dëkk bi te doxalin dund defuñu dara jàppale wuñu ci du ma leen defal dara mais Aziz boo nee mu dem li jëndi boo nee mu dem li jëndi indi kon non non dari dañ ko ci mana-mana presiden président des handicapés yaa ngi joxaan bën di bëggee ñëpp nag di ziar ñëpp di ko rek mooy taal te yàlla suñu borom taal na ko doo fay ak ci sëriñ Ba ku ko bëgg a jëm nag yàlla na ko suñu borom yeggale day wax ne képp koo xam ne sën nga suñu daan dañ ma def boo ko bëggee mu ubbi mais ana diw fu mu dëkk ñu ne xamuñu ko kon kooku erreur la lu leer naa ne bu ngeen dee fal fal leen ki dëkk ci dëkk bi wala kooku defar dëkk bi moo fi ne mais dem ba arama di ko dëkk wala nga dem ba si presse wala nga dem ba feneen ñu xool ko ñu ko Aziz moom bëri na ci barkalam ku mu dem dem ko mu dem te sa loxo ànd ak moom lay dem mm-hmm. Aziz yóbbu gi yàlla ko suñu borom leen di nuyu nekk sa tur ak sa sant comme ni koy faral di defee fépp. nuyu waa mu ne li nga xam ne ñoom laa fekk si fii te dëkk ak ñoom. nuyu équipe football bu Mourel ñi nga xam ne ñoo ma seet si woon wax ma seen aajo si terrain bii ma dajeeg ñoom tey. ñu ñëwee suma kër dañu waxoon ne seen terrain bii dañu bëgg ma baliser leen ko. ñu waxtaan ba xamal leen incha bu soobee suñu borom dinaa ko def yaakaar naa ne ba ma xëyee suba laa ñëw validé leen ko ay machines yu ñu loolu weesoo waxuñu woon sax ay poto en fer wala nga ko jublu waaye man li may wax rek comme si bi laa dëkk si dëkk bi laa dëkk dëkk ñàkk di dëkk commune Tivaouane ñàkk yaakaar naa ne lu ma def sama bopp laa ko defal xale yi amee fu ñu defee moo tax ma def ko yéen waa Mourel na ngeen xam ne man ak yéen man ak yéen ba biir yéen aussi amu leen lu dul man. di woo aussi waa ñàkk yëpp laay wax ñëpp nag bàyyiwuma waa commune bi yëpp aussi yëpp. ne leen mouvement ànd defar suñu gox. mu ngi leen di woo pour ñu ànd li may woo ma kenn pour mu jàppale mouvement bi mais pour ñu man laay woote. ñu ànd liggéey.

waaye bu ñuy bu ñu xamoon ñëpp daañu ñëw te di wax ren dina am te yumb dana jëf fuñ ko fekkul kon yéen waa mu leen maa ngi di gën a wax rek leen ñoo dëkk leen bokk ñoo bokk dara di woo waa commune Tivaouane Peulh ñàkk di wax ne saa ñoom mënuma dara te incha allah ñu jëm maa ci woo ñëpp ñu préparé seen ba nga ñu vraiment ngi ñu 내 사랑이 떠나